salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ànd ak la 90 international daal leen jàmm ci xabaar yi bu ngeen taxi loo tuuti rek ñu jukki leen li ci gën a dokk na ci jàngalekat yi noppi nañu ngi delluwaat ci l'école yi ngir jëfe ak fekk si nguur gi ci bëgg-bëggam waaye ci kaw ñu garanti leen seen ak wér-gu-yaram ak bu dongo yi lii di gel masque ak thermoflash dara ja bañ a manqué lu ko mooy daañu dakkal njàng ma daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Sarr ci jamono ji nga xam ne comité régional bay xeex mbas mi di coronavirus fii ci soxna Aminata Touré toll ci ñetti junney masque ci jamono ji nga xam ne ëpp ca ñañu quarantaine noonu ñibbi nañu seen i kër ña ca des mucc nañu ci seen test yu njëkk ya daa ci dégg Cheikh ci réew mi waaye itam ña ci beneen anam daan ci ànd ak soxna Ndeye Fatou Cissé xabaaru bitim réew Cheikh Tidiane Sarr lañ ci àndal tàggat yaram Serigne Moussa Kane kooru gay molum géej daan ci ànd baax a Diop li yëgle kay xëye tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon li lépp yembe mbokk yi xabaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala taal loolu ñu dikk ak yéen ci yaatal gi ak faram fàcce gi gannaaw bàkk bi lay doon. dal leen ak jàmm mbokk yi yéen ñi tàmmu la référence internationale ngi day xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyeeku fii ci meuble Cheikh Imam si Cissé studio Ali Momar Lo kaddu sekk madame Keneme moo jon ak man ci wàllu xarale gi bi ba dégg-dégg bi man di leer jàngalekat yi joxe nañu seen ak charte ak seen ay conditions yooyu tax ñu jàngale ji ñaari fan ci weer ak euh, juin lii di euh, masque ak euh, gel jëm ci rek ay matukaay ak yooyu nee nañu bu ñu sañoon dara du ca manqué ñetta des nag moom ña ngay sàkku lii di garantie donte nag d'accord nañu ci boobule dogal Cheikh Tidiane Sarr. ndongo yi war a delluwaat ci classe bi niki ñaari fan ci weeru juin bii di ñëw waaye nag ñi nga xam ne ñoo leen di war a jàngal di jàngalekat yi ñoom nee nañ d'accord nañ ci delluwaat ci classe yooyu waaye ci kaw ñu respecté li yenn ci conditions yi Jean Amayande Diouf mooy secrétaire général SAEMS e bu diwaanu Kaolack. jàngalekat SAEMS e yi ak syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ñun pare nañ pour dem mais vraiment bëgg nañu aussi également état aussi parce que moom moo nekk garant euh, suñu santé suñu suñu sécurité ah, toutes les dispositions pour garantir suñu sécurité ak suñu suñu santé ñu ak élèves yi. d' accord nañ delluwaat gisaat suñuy ndongo waaye ci kaw ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ni ñu mën a def ba protéger jàngalekat yi di gis-gisu professeur bi ñuy wax Bokar Faye. ñun enseignement bi jàngale ñun ñoo ko choisiral suñu bopp mu doon métier boo xamante ni dañu ko bëgg eh, je pense que ñun lu ñu mën rek moom mooy lan ànd ñoom ci seen bëgg-bëgg wante nag école yi war nañ fa mën a def ay gel élève bu nekk war na am ay masque mais aussi war na mun a am ay terme flash c'est-à-dire des mesures d'accompagnement dara warut se manqué yooyu sax bu matul dàqooñ sax ba dakkal li nga xam ne moo di cours yi professeur bi ñuy wax Jijak moo wax lu nu mel d'accord nañ ci principe bi nañ jéem a jàng dund ak virus bi waaye nag nañ xool nag tamit ndax respecté nañ mesures yi nga xam ne war nañ koo jël waaye nag bu fekkee ne respecté wuñ ko aussi dañuy exiger ñu arrêté cours yi arrêté njàng bi ci weesoo loolu yëpp nag Bokar Faye mu ngi bàyyiloo xel ba tey ñi kilifa yi ci lu jëm ci transport yenn ci jàngalekat yi nga xam ne fu ñu nekk dafa soreek lool fu ñuy jàngalee. ci enseignant yëpp tey ku nekk fi ngay jàngalee nekkuloo foofu dëkkuloo foofu ñi ci gën a bëri dëkkuñ fi ñuy jàngalee donc trajet boobu noonu tey nañu xalaat vraiment ci loo xamante ni moom mooy accompagner pour aar enseignant bi parce que boo aaree enseignant bi vraiment moom mooy wane ne aussi yaa ngi aar élèves yi. ànd ak loolu yëpp nag ñëpp a ngi xaar ñaari fan ci weeru juin bii di ñëw ngir ñu mën a delluwaat googee ñuy sàkku ci seen ak wér-gu-yaram ak bu ndongo yi mel na ne kilifa yi dégg nañu ko ba tàmbalee jël seen ak matukaay tax rek maire bu Ndofane moom génnee na ci gafakaam lu ëpp juróomi million ak lu teg jëndee ko ay matukaay ay jumtukaay jagleel ko l'école yi ci teewaayu Nouabia ngir xeex lu ñuy wax Covid 19 boole tamit waajat ubbit école yi Samba Ndiaye nekk maire de la commune de Ndofane may na ay jumtuwaay bu mel désinfectant ci fukk ñaar école ci classe yi war a def examen. ñun bi ñu déggee loolu rek ñu ne ah kon amatul xaar ñaxtu jaru ko wax ji jaru ko li ñu war a def mooy fexe waxtaan ak acteurs yi ñu xool loolu kilifa gi bëgg te muy intérêt réew mi naka la ñuy defee pour que loolu mën a nekk lu am président nag dafa def ordonnance boo xam ne dafa yombalal collecte territoriale yi seen liggéey ñu dajee ak sous-préfet ñu waxtaan man na leen man daal lii laa bëgg a mooy li ma indi tey mooy ñu am gel am ay mouchoir am poubelle am saabu yeneen yëpp yi ngeen fi gis ay raccord sax yu ñuy kiyee ndox pour bañ a yàq loolu nañ 5 millions 500 mel ni Samba Ndiaye subventionna ci école ñooñu. boole ci nag jox leen xaalis parce que dañu gëm ni ñun mënuñoo régler lépp ñoom am na lu ñu war a yore loo xam ne ay yu ndaw ndawaan la ñoom ñoo ko mën a faj donc ci loolu ñu joxe un million cinq cent mille subvention donc boo xoolee subvention bi ñu joxe ak bagage yi ñu jënd pour que daal le 2 juin ñu mën a dem jàngi. daje yi mel ni dafa nekk occasion ci Samba maire de la commune de Ndofane di ñaax askan ku nekk dugal loxoom ci xeex ci feebar yi weesoo euh, subvention boobee ak bagage yi nga xam ne jënd na ko moom maire ba ma ngay waaj a liggéey ak waa service d'hygiène ngir fexe rek ni ñu pomper l'école yi boole kooku di sàkku ab tàggatu gu sëkk ci terme flash yi ngir rek euh, bañ a yàq ëllëgu benn ndongo Samba Ndiaye mooy maire Ndofane ñu teewlu ko ak Noa Biaye. am na nag yeneen charge yoo xam ne ñoo koy jëlal suñ bopp mu ngi mel ni li ñuy wax poudre ci école yi ba nga xam ne microbe yaak ak ci wàllu masque nag président de la république Macky Sall nee woon nag gouvernement bi nañ joxe masque moo tax ñun joxewuñu masque parce que masque yooyu bu ñëwee ci école yi xale yëpp dinañ ci jot ak enseignant yi li ci topp mooy thermoflash en tout cas li ñu xam daal mooy mesure barrière yi yi ñuy wax thermoflash bokk da nga raxasu sol masque ngeen wante classe yi ñaar fukk lañ par classe loolu yëpp réglé nañ maintenant affaire yi thermoflash ñun sax fii bañ waxtaanee ko directeur dama leen ne lu jara moytul parce que nga yore sa thermoflash formé yoo ki baax benn xale ñëw ñu def ko nii mu am température 38 ñu ne ko yow taxawal jàllale yeneen xale yi naan kii dafa am corona mu jóge fa yàq addinaam yàq addina këram loolu je crois que lu jara suuraale moo tax ñun daal Ndofane premier adjoint dina fa dem ànd président CODEC ànd ak présidente des parents d'élèves madame Mbodj bu ñu demee dinañ waxtaan population yi ñu xam ne képp ku sa doom xëy wér gu yaramam demeewul noonu ku ti ne xam nga sa doom nga gis ne warta mën a jàngi nga téye yóbbu ko ci docteur mu xool ko moo gën ñu dem ba am problème ko teg wet ñuy xam ne ëllëg mën na ko yàqal jàngam yàqal ko àddina Samba Ndiaye gannaaw sa dogal donte nag àndoon nañu ak njàqare ak tiitaange ñoom jàngalekat yi bi nguur gi jëlee boobu le dogal waaye jamono ji ngir ñu gannaaw bu ñu gisee yooyu na bu ñu sukkandikoo ci madame Bodian Aïssatou Sène jiite ak kuréelu comité yaay doxal mbiru l'école ya ko ba léegi ak noa bi yaay. pare nañ pour delluwaat ci école yi ndax euh, boo seetee ñun jaaxaloon nañu lool dañoo jàng 6 mu war a des 3 yoo xam ne xale yi dañ ko war a jàngaat affaire bi ñoo daan suñ kaw ñu ne suspendre nañ cours yi suspendre nañ cours yi kon tey ji bu ñu demee naroon a toog ba école tij ji ba mu yeneen siiwmaa yoo xam ne xale yi ñu jànguñu di taxawaalu wax dëgg yàlla mun na leen a joxal leneen kon buñ toogee tey ba président jël décision bi ne nañ delluwaat école wax dëgg yàlla contentement rek liñ na feebar na waxuñ ne kaa amatul waxatuñ na xale yi nañ jàngi ah ñu ne wax dëgg yàlla loolu ñun dinañu jaaxal yan mesure ak yan matuwaay la ñuy suñ doom yi di bu ñuy dem école mu jaaxal ñu lool parents yi di koy laaj wax ñu ne wax dëgg yàlla reprise des cours dina am le mais le 2 juin boobu ak ay matuwaayam am nañ ay mesure de barrière matière yoo xam ne vraiment buñ ko defee ci école yi xale yi dinañ jàng du am benn problème ñu ne ah ñu expliquer ñu ne ñu mutuwaay yëpp jël nañ ko ñu doon inquiété wu ne dañuy xam ne quatre-vingts la respecter aussi distance bi nga xam ne moom la wax nañ ko respecter un mètre cinquante te ñi nga xam ne ay élèves lañu ay jàngalekat lañ yoo xam ne hors zone lañ dëkkuñu Ndofane ci feneen lañ nekk te da seet dans les quatre coins du Sénégal fu nekk jàngalekat jógee ñu jël si la bokk balaa enseignant dañu bala lii loolu yëpp ñoom càmbar nañ ko jàngat nañ ko ba élèves yi bu ñëwee dinañ jàng dans de bonnes conditions fi mu nekk dox dëgg yaa xel dal nañ yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 ñu wéyal xabaar yi àddu ci wàllu solidarité ak jàppalante njiital conseil économique social et euh, environnemental di soxna Mimi Touré moom nag yónnee na ay ndawam ca comité régional bay xeex mbas mi fii ci kaw Kaolack jox leen lu tolloo ko ñetti junney masque ci jamono ji nga xam ne ñu ëpp ci ñañu quarantaine noonu ñibbi nañu seen kër ña ca des nag mucc nañu ci test yi Cheikh Ababacar Dieng. soxna Aminata Touré dugal loxoom bu baax ci comité régional bi ñu fi tekk ngir ñu xeex masque la yee ngeen jëtli di gouverneur ba ñu noppee nag professeur Pape Diallo yoroon seen kàddu. tey soxna Aminata Touré yónni ñu mu ànd ak ñaari conseil spéciaux Moussa Fall xam ne kenn doot ko présenté ak Abdoulaye Diop ba pare ànd ak staff politique am nga xam moo nekk fii biir Kaolack que gouverneur dafa defoon appel par delà le président la République pour ouverture juin que ñu mun a indi masque pour ñëpp mun a jàng moom am am lu am lu mu indi cas bu fi am fexe nga ba mu jóge mu ngi lay gërëm di la sant. feebar bi ba mu tàmbalee ci diwaan bi ci 24 avril ak tey jii juróom-ñeenti nit ñoo fi yoroon jàngoro ji juróom-benn yëpp wér nañu. juróom-benn yëpp sant nañu yàlla wér nañ ba ñibbi nañ seen i kër ñett moo des fii ci centre bi te ñett yooyu amul benn complication am na beneen région aussi bu nga xam ne indiloon nañu ay malaatam mu nekkoon fukk ak juróom-ñett ñooñu aussi ñaare fi des. bu dee ci cas yu njëkk ya nag kenn rek moo nekk gum ci hôpital Kaolack amaat ñaari yu bees loolu lu ëpp téeméer ak fanweeri doomu aadama dañu leen a ber maanaam li ñu dippee quarantaine ci ay bërëb yu wuute gouverneur di ko xam le xamle Aline Badara Mbeng ñaar fukk yi ñu ngi fii ci benn hôtel juróom benn fukk yi ak juróom ñett ñu ngi fële seen dëkk ci ameen waalo fanweer yi ak ñett yi ñu ngi fii ci kawoon mais ñooñu wax dëgg yàlla ñu ngi leen di suivre di leen jàppale di leen dimbale tey jii signalé wu ñu ci dara lu nga xam ne am na complication fàttali nag mu di ñu quarantaine ca kawoon ci caamen waalo ak fii ci Kaolack ñoom ñëpp nañ seen premier test yi positif waaye dañ leen di dentandi di xaar app bi mat fukki fan ak ñeent ñu defaraat laat yeneen test yi tamit bu négatif mooy tekki ne dañuy génn ci bërëb yooyu la. Cheikh Babacar Dieng gornoor Aline Badara dalal leen ba noppi gërëm ko moom soxna Aminata Touré xamle itam ne ñetti junni masque yooyee mu joxe dina am solo lool ci xeex bi waaye itam di wax ne du guleet ndax yàgg naa jëflante ak ñoom gornoor Aline Badara ak Cheikh a a am Aminata Touré euh, di wax ne soutien yàgg nañu ko jot surtout surtout bi ci ëpp importance mooy soutien moral même su fekkee ne toogul ma toog fii ci gouvernance bi ñi nga xam ne nii ñoo koy représenter fii ci région bi danañ may indi nuyoom danañ may indil soutien dégg ngeen léegi monsieur Diallo di ko wax loolu depuis le début mi ngi koy def jëmale ko ci ñun te loolu lu am solo la xam nga koy bay ci toolam jaajëf dana tax tool bañ a booy ah nga romb nit ci toolam na ko jaajëf ah mu gën a góorgóorlu soutien moralam boobu lu am solo la ñu ngi koy jot bu baax sax bu yàggul rek du épidémie bi commencé am na benn collaborateur am bu bind benn article vraiment article boobu wër réew mi pour encourager comité régional bi affaire boobu doole na leen doole donc pour dire que dugulee tey nag far mu def li nga xam ne ni c'est un acte concret mu indil ñu toll ci ñetti junne masque masque yooyu dafa am solo jamono yi ñuy toll nii nit ki boo ko mayee masque rek mën nañu wax ne yow dox nga diggante moom ak virus bi waxuma laa nag mu mayee lu toll ci ñetti junne masque je que loolu lu am solo la donc ci turu président de la république son excellence su ma Macky Sall dañ ko ciy gërëm di ko ciy sant bu baax a baax a baax. lu jëm nag ci ndimbal yooyee ñuy jot la mu ca xamle nag mooy nee na ñoo ngi ci liggéey bi di càmbar ak di saytu ba nga xam ne bu buñ ca noppee dina rafet dara du manqué tax rek muy sàkku ci askanu Kaolack ngir ñu doolee muñ ndax ndimbal li dafa bëri lool te bëgg ko parax paraxee gox na ba Badara mbeng ba léegi ak Cheikh Ababacar Dieng du nekk fan yu nga xam ne rek dañ toog di seetaat Sénégal dafa yaatu tabarkalla ndimbal bi dafa bëri aussi donc de telle sorte camion yi bët ba set ñu ngi chargé di jógee Dakar di wër di dem ci biir réew mi di déposé bu yàgg rek ministre bi ñëw na fi ba lancé fii opération bi fee ci wàkku ngóona mais dañ bëgg dajale lépp actuellement ceeb bi presque presque presque bu nañu quatre-vingt-dix pour na wax ni ceeb bi yëpp ñëw nañ mu des nag yu sew yi dawlin beeg suukar seeg saabu beeg yooyu moo des du temps xam nga liggéey boo gis rek dafay am méthode et organisation boo ko organisé wul parax parax pour yaakaar ne waaw su ko joxewul nit ñi dañuy wax nangam nangam soo ko organisé te baaxul aussi boo ko joxee leneen moo la cee fekk gannaaw dañ na package la da ngay xaar ba dajale package nga xam ne koo jox doo ko jox muy dem di delluwaat di dellusiwaat boo ko joxee ceeb xanaa danaa dawlin boo ko wax ne ko demal baxale ko ko joxee ceeb da nga ci boole dawlin da nga ci boole suukar da nga ci boole saabu da nga ci boole euh, pâte alimentaire loolu mooy paquet bi paquet boobu nag tuutee ci des buñ dajalee yëpp bu ko defee joxe ko patiente tuuti rek ne gouvernement bi la mu waxoon ba léegi jugu ci loolu na ko leeral jugu ci bu paquet si bi yeggee ci diiru ñaari fan ñetti fan distribution bi du ko wees crois loolu crois que ci bàyyi xel euh, parce am na solo d'ailleurs ce matin sax am na ñaari contrat yu ma signé ak ay opérateur ci département Nioro ñoo xam ne sax commencé nañ di ko transporter parce que ko liggéeyee mooy point de stockage foofu la dajale lépp ko defee nag transporteur yi nekk au maanaam chaque chef lieu de commune à partir des chefs lieu de commune nag dëkk yi ñëw takk seen i saret organisé wu ñëw jël si seen ceeb moo gën a yomb par exemple ku nekk ñooro nga ne ko kaay jël si si ceeb Kaolack wala ku nekk fële ca Kaymoor wala ca beneen dëkk nga ne ko kaay jël si ceeb yi dafay sori moo tax ñu bëgg ko jegeel bu ñu leen ko jegelee nag ba pare jël si ko mais nag xam ne ne chaque jour ñu ngi ciy liggéey amul benn bés bu nga xam ne toog nañ ci liggéeyuñ ci liggéey bi sax dinañ leen ko jox ñu jëfandikoo. gouverneur Alioune Badara Mbengue ñeneen ñu wanewaat seen bopp ci xeex bi mooy coopération allemande bi lëkkaloog waa conseil départemental bu Kaolack ak waa GIZ ko ci am ndaje mu rëy foofee ca biir conseil départemental lépp xewee ci kanamam moom Cheikh Tidiane Diagne. conseil départemental dakul di dugal loxoom ci xeex wi soxal pandémie bii di coronavirus gannaaw ndimbal lu bëri lu mu joxe ci askan askan wi nag indiwaat na leneen jàppale ko moodu moodu yi nga xamante ne dañoo nekkoon ca tugal te ñibbisi ci seen réew ak itam ñeent fukki doomu aadama yu yor jàngoroy roñoo ñu leen di fayee ci hôpital régional El Hadj nges Niass bu Kaolack lu jëm ci wàllug raxasu ak aaru ci jàngoro gi la leen jébbal ñoom ñi nga xamante ne ñoo jot ndimbal loole nag rafetlu nañu ko docteur Adama Kama mooy chef de service néphrologie bu hôpital régional bu Kaolack. doo Covid 2019 sama capacité d'accueil 43 la mais depuis ba épidémie bi commencé maa ngi juróom fukki malade parce am na ñoo xam ne mënu ma leen envoyé ci privé bi léegi nag ce qui fait que actuellement quand même je suis à 50 jafe-jafe yi peut damay ne fi ñu nekk nii xam nga centre bu yàgg la am na luy yàqu ci matériel bi wala su magetaayu centre bi moo tax daal li ñuy gën di plaider mooy su ñu mënoon am extension ci centre dialyse bu mag loolu daal dina baax ci population Kaolack gannaaw hôpital ñu wutaliwaat conseil départemental bu Kaolack ab ndaje bu doxoon ci diggante migrants de retour yi ak conseil départemental ci lëkkaloom ak GIZ ñu jébbal ñi fi nekkoon ay moodu moodu ndimbal lu takku Bassirou Bey bi njiitu fédération migrants de retour yi nekk fii ci Kaolack lu ko ba noppi dikkaat nag ci seen tolluwaay. suñu xool seet na trop parce que aussi kii ñëw di la dimbale si ci benn programme bu mu am mu ñuy wax euh, programme de coopération sud sud mënuñ def lu dul kontaan ci difficulté yi ñu am nag mooy les migrants de retour qui sont là ils ont de sérieux problèmes parce que booy seet nekkuñ ci dara parce que Europe aussi tamit du da ngay dem rek da ngay am xaalis dañuy foog ne dañ koy former du noonu. moodu moodu yu njëkk ya ñu ngi woo xale yi ñu toog ci seen réew gën a saafuwanteek liggéey bi te itam di leen ñaax ci bu ñu jaar benn yoon ci gaal yi ku ci tukki bala ngaa dem nga am métier moo jàpp ba noppi boo demee mën su ko fay yëngu. Cheikh Tidiane Diagne dañuy des foofee ca conseil départemental fekk fa président Baba Ndiaye moom la mu xamle mooy ña amee si orientation jëmale ko ci ndaw yi nga xam ne rek ña ngay tukki ci anam gu dëppoowul ak yoon ak matukaay yéen ci jël ngir jàppale leen waaye itam seen ay partenaires ya leen ciy gunge président Baba Ndiaye ak ci Tidiane Diagne ci gannaaw rek am na malade jigéen bu newoon dialysé yàlla dogal mu loru si feebar bi ñu Covid 19 bi nga xam ni un test bi nga xam ne moo ko moo ko jox jàngoro bi ñu jàpp ne kon ñoom war dañ jël seen matukaay pour gën a mën a moytu jàngoro bi ndax lu lor leen dafay daal di yomb si ñoom ci loolu nag euh, conséquence de Kaolack jël engagé teewaay direction hôpital bi hôpital bi mais ñi nga xam ne ñooy fal dialysé yi pour seet def leen dans un premier temps jàpp bi ñu jàppale tey nag dañ jàpp ne rek lu njëkk la mais tey dañu taxaw jàpp ne ñii tous les également war nañu waxtaan jàppale leen si li xam ni gën xam nga fii liggéey si thème yu bëri fii si conseil départemental de xam nga tey boo xoolee migration ñun liggéey nañ si accompagne italienne ba tey am nañ fi guichet d'orientation bi wax dox di wax ak doomu aadama ak xale yi nga xam ne ñuy taxaw bëgg a dem migration bi ñu dem te jaaduwul maam irrégulière la amuñu kayit du lan moo si nekk si conséquence lan moo si loraange mais ñu wax également nit mën a def fa ak ni mu fa war a demee dem fa si lu jaadu donc tey am na fii si biir conseil bi ñu jox guichet dooleel migration am nañ fi également centre de formation boo xam ne tey xale yi nga xam ne dañuy dem jàng ba pare yaakaar ne migration mooy solution bi ñun ñi leen di former loolu nag OIM moo ñu dimbale ak ANPEJ centre bi ay téeméeri téeméeri xale dañuy former at mu nekk yokk seen capacité pour ñu mën a am liggéey ñu mën a également def leen loo xam ne ni entrepreneuriat la ba léegi ñu mën a toog dimbale réew mi mais également suñu coopération ñun en tant que conseil am ko si ka région Kaay région orientale bu Maroc mais également la région de Nava bi nekk Côte d'Ivoire Kaolack day nekk plateforme lii lu njëkk la waaye su dugul woon na Covid bi suñu jigéen ñi def alimentaire nekk en fédération kon tey déggoon ngeen dem nañ Maroc ñu fàmm leen ba ñu ñibbisi déggoon ngeen aussi bu yàggut que suñu xale yi fukki xale ak juróom am nañ bourse étrangère dem jàngi Maroc si année bi euh, dimbali ay produits tey bu ñu jëlee dimbalu bi ñu yóbbu hôpital jox ñi xam ni may marjalisé yi loolu ay gel hydroalcoolique la ñii nag ñoom am nañ produits yooyu waaye am nañ aussi lu jëm si madaar ay am nañ jëm si eau de ak produit antiseptique yoo xam ni gën danañ dimbale euh, que lépp luy virus wala microbe wala bactérie seen biir kër yi euh, ñi mën ko également fàggandikoo ba du leen mën a lor. yéen a déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 ñu nekk ci waajtaayu korité mu yemook jamonoy mbas mi atum ren nga xam ni rek bëri na li nga xam ni am na jural na leen ay loraange mu métti loolu itam ci ñoom moo xam dugg ak lépp la ca aju ca Ziguinchor nag dañ fay fekk Mohamed Sagna doxantu ak moom ci biir marché Ngelaw ay fan yu néew moo des pour ñu daal di amal li nga xamante ne mooy korité ab doxantu la ñu amaloon ca marché ngelaw bu nekk ca diwaanu Ziguinchor foofee ñu jàpp ni clients yi daanaka bëriwuñu lool bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne mooy Khady Gueye te muy jaay ay légumes. njaay bi doxul noonu de ak feebar bi nii marché bi doxul dara fu mu nekk ni clients yëpp a daw am na coppite bu baax sax bu baax a baax parce que fu mu ne nii xaalis amul koo gis mu ngi jooy koo gis nee na dara amul dëkk dañu ne sa a cher foofu moo am wanteer ah. client yëpp lañ daw looloo tax marché daa xaw a vide am na marchandise moom assez ah, de a cher nag waaye am na ñiy si nag la plupart nag xanaa client yu fidèle yi de waaye bu dul loolu ñëpp marché bu kot la ci waxtu coronavirus bu ñu neen ni jaaykat en yi am nañu ay jafe-jafe lool pour daal di jaay seeni produit bu ñu sukkandikoo ci Xaadim Ngay moom mi nga xamante ne xamal nañu ni soble bi ak pomme bi am na waaye nag li nga xamante ne mooy tàngoor bi mu ngi leen di sonal bu baax a baax ndaxte lu ñuy nemmeeku ci yàqu-yàqu bëri na torop. mbirum soble ak pomme de terre waxtu eh, fi ñu toll nii wax dëgg jafe-jafe bu ñu wax amagu ci parce que soble bi am na moom prix bi seeragut aussi te yaakaaruma dana seer bi yàq ak yoon ndax tàngaay bi en gros mi ngi ci deux cent cinquante détail trois cent lu mu yokk yokk romb trois ko paase te du manqué tamit. Aïd el mu nekk fête bi nga xamante ne dañ koy daal di amal ci njeextalu koor waaye ren jii nag ci contexte bu particulier lay am fii ci diwaanu Sénégal donte sax ubbite jàkk yi ñu nemmeeku fan ni askan wi rafet nañ ko bu baax a baax waaye ba tey am na ñi nga xamante ne fas yéene nañu des seen kër ñu daal di amal julli bi foofu pour daal di li nga xamante ne mooy feebar bu ñu Dina Ziguinchor Mohamed Sagna Alfayda FM. Mohamed Sagna dañuy jël si waat fii ci euh, Saloum bàyyi sa waxtaanee wàllu njënd meek njaay mi ñaka ngànk fii ci Kaolack ñoom itam da ngay bàyyi xel marché bi xool njëg yi ba nga xam ne rek dara du manqué waaye itam njëgu pom soble ak pomme de terre ak lii di ganaar du manqué Seydou Nourou Baro chef service commerce ma ngay dalal xelu askan wi ci micro Noa Biaye. comme niñ ko faral def bu nekk ci wàccaayu feetu korité bi dellu nañ ci marché bi di xool lépp lu nga xam ne askan bi daf ko yitteeloo ci li ñu nekk ak ñu naan stock yi ak prix yi fu ñu toog waaw lu ñu nemmee ko rek mooy que macha allah marché bi denrées de grande consommation yi lépp li ñuy soxla am na ci marché bi ci quantité yu doy prix yi tamit daanaka fi mu nekkoon rek ci début koor bi ba léegi foofu la toog naam at yi passé daanañu nemmeeku ay jafe-jafe suñ ne suba wala ginnaaw suba mooy korité wante bi yoon macha allah loolu mel noonu dara am ci prix yi fi ñu toogoon lañu nekk et am na fi ay produits de qualité. li jëm ci ginaar yi daanaka dafa nekk produit bi nga xam ne askan bi daf ko yitteeloo loolu ci Korité bi nemmeeku nañ si ay jafe ci fan yële ci ginnaaw ndaxte pandémie bi ginnaaw ba ñu taxawalee lépp luy manifestation ak regroupement ak restaurant yii di recevoir ay nit ñii di yëngu ci secteur agriculture amoon nañu ay jafe-jafe pour jaay wante fii ci Kaolack li ñu nag depuis le début du mois de Ramadan. temps effectivement vente yi xaw na yokk tuuti mais aussi ci wàccaay Korité bi gis nañ ko également que produit bi aussi mi ngi gën a dem ndaxte demande aussi dafa yokk mu nekk vraiment un ballon d'oxygène pour le secteur de l'agriculture Faro ñu des ba léegi ci wàccaayu korite gi njiital mouvement MJK di Ousmane Noël Dieng gannaaw ba mu sooboo ci xeexu mbas mi ma ngay taxaw nag yenn ci ay borom kër ci jamono yi wàccaayu korite gi ñu ne jaaree ko ci limu nag yu takko takku jaaree na fa itam àddu jëmale ci ay naataangoom politicien di sàkku ci ñoom ngir ñu bàyyi politique yi te jàppalante ndax loolee la réew mi soxla guddi ñu toll Ousmane Noël Dieng ak Cheikh Tidiane Diagne. di ko gërëmee aussi xam ne ñu ngi toog jaaxle ñoo xam ne franchement dara dara dara nekkul seen poche te fi moo war ne quartier ko Seydina nit ñi séddoo ko def ko yóbbu ko seen kër yi su ma sañoon kenn du sonn moo dañuy jéem rek góorgóor def lu ñu mën Sénégal foofu la toll Sénégal tolluwul ci polémique Sénégal tolluwul ci xuloo ak ñiiroo ak ŋaayoo fi ñu toll ni politique dañ ko tegee de côté mais à chaque fois damay faral di ko wax dañu gërëm aussi le président Macky Sall ci liggéey bu rafet bi muy liggéey ci Sénégal boobu léegi Macky Sall am na yërmande ci askanam mi ngi koy def ci anam a rafet waxoon naa ne benn parti moo am fi ñu muy Sénégal benn opposant lañ am muy Covid 19 donc nañ fexe ba politique bi nañ ko lalee bàyyi de côté ñu jàppalantee la tax opposition bi su fekkee da nga bëgg a opposé wu li gën a rafet mooy yow Sénégal nga bëgg laaj yow yaa ngi bëgg laaj Sénégal te fi ñu doon ba léegi mënoo def dara si Sénégal nga toog fi nga toog gàddu CCD na di ŋàññ président Macky Sall loolu duñ ko nangu dinañ toog tey saa buñ ko ŋàññee dinañ am boolee Senghor boole boole Abdoulaye Wade président Macky Sall def leen quadruplé nga naam naam ne fa balaa ngay dem di corté sa famille nit tey bu feebar daloon du dinañ tal leen lu corté kenn jullee gën a foor am na ñoo xam ne ñu koy faat am na jaamu yàlla yu gën a foor am na ñoo xam ne ñu ngi nii am na ñoo xam ne bu feebar dañ koy faat am na ñoo xam ne kooruñ sax bu ko corté boo wóorul bu ko loolu day doy waar donc du forcé feebar moo am président Macky tëjul yoon bi pour am envie tëj yoon bi dafa am feebar bu am ci réew mi te feebar diggante de Aly Ngouille Ndiaye jël décision yooyu noonu nekk ku ci nekk na nga toog fi nga toog loolu ëpp njëriñ léegi mu jeex nañ ko muñ rek inna laa ma saabirina yàlla mi ngi ànd ak aji muñ kat yàlla moo ñu ko teg si xefe xippi yal na ko yàlla teg si xefe xippi ña jotee ca ndimbal nag ñaanal nañu ko yàlla rafetlu taxawaayam ànd ak di xam ne ne yàgg naa jëflante ak ñoom tax rek ñu ne bu ñu amoon fukki yu mel ne moom daañu sant yàlla seen i kàddu ci micro Cheikh Tidiane Diagne. fu ñu bëgg a yegg yàlla na leen fa yàlla yeggale ci barke Cheikhou Tidiane Ousmane dañ koy ñaanal te yàlla tax te lépp luñ ko ñaanal da koy dal barke Mouhamed. Ousmane mi ngi si Kaolack gii suñ si amoon fukkam jël te benn leen si am nag muy Ousmane Noël mii gisuma ko ko ñaareel Kaolack Ousmane Korité moo gën Kaolack Ousmane Covid bii feebar bii néew di doole yi sa yaram day daw Ousmane par kenn day dugg marché bi par kenn lay jox day dugg rue bi atelier yi ministre yi mécanicien yi ku ne day joxe nda comme liggéeyatu leen ale jakarta yi muy joxe kon Ousmane nag yi mooy lu mujj Ousmane li muy def sax sax jëlu leen ko moo ëpp li muy li li ngeen di jël Ousmane ne leen nag yi mu joxe duñ na guleet parce que da doon def ay ginaar di ko jox néew di doole yi di ko jox ñu bokk MJK tegal la si boisson tegal la si ceeb tegal la soble daal di la jox dépense na la demal marché yeew ay nag ñu ne du benn nag du ñaari nag ay trente nag mu ko ci koñ bi ne du ma ko yemale lew na ñaseen ndax fii rek juddalewut Ousmane Noël Ousmane Noël tey ñëpp a ko soxla doomu Kaolack la mi ngi saam mi ngi Medina Baye mi ngi Ndorong mi ngi fépp mi ngi Ndangaan nday ji seex la njaaxanaay la tëddee oto yaa ngi nii gaare pompiteer bi soble bi couscous yi vermicelle yi ndox yi boisson bi yëpp a ngi nii tege dara manqué wul Massamba Camara maa ngi nuyu ñëpp ñun nag ñun ñu ngi tudd les jeunes novelistes ñu ñoo toog oote réunion ñëpp des jeunes Kaolack bi dajoo ñu waxtaan suñu biir kenn ñu Ousmane Noël moom leen gis muy jàppale daamu daamu yàlla yi këdd dëkk bi mu jàppale jeunesse bi moo tax ñu koy Ousmane Noël li nga mën ren bu déwénee yàlla nga mën lu ko raw ci sa loxo kon jaajëfe monsieur Ousmane Noël Dieng li mu doon daw ci dara doomu Kaolack la benn benn doon leader biir Kaolack di jëriñ waa Kaolack di jëriñ askanu Kaolack njëkkee ko nag ci ñi nga xamante ñoom lay liggéeyal tey lan laa war a wax loolu xelaat naa xool naa mais Cheikh vraiment xaw ma da ma war a inspiré li may inspiré wu mooy Kaolack gii ñu nekk ni Ousmane Noël Dieng fierté de Kaolack Ousmane Noël Dieng Medina Baye gërëm na la Ousmane Noël Dieng Niassène gërëm na la Ousmane Noël Dieng MJK gërëm na la Ousmane Noël Dieng bi gërëm na la Ousmane Noël Dieng na fi yàgg te wër. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu àddu jëmale ci mbiru yoon ak yoonal gannaaw bi njiitu réew mi Macky Sall xam leen ne dañoo war a jàng nu ñuy ko feebar bi waa cour d'appel bu Kaolack ñoom ña ngay waaj a dooraat seen ak liggéey gannaaw korité waaye itam ànd ak tëral digle yeek tere yi ñu duppee bu Kaolack mi ngi ci micro soxna Ndeye Fatou Cissé. depuis le mars. ba ñu xamee ni feebar boobu ñuy wax euh, Covid bi ñëw na fii dañoo arrêté woon audience yi. boobu ba léegi presque atteewuñu à part quelques nga xam a on a pris quand même la faire comme yu mel ne ay flagrant délit wala yenn affaire urgente yi nga xam ne il fallait qu'on les évacue mais si lépp doole daal boobu ba léegi liggéey bi dafa taxaw en ce qui concerne atte yi ñu ñëw nag si bureau yi di kii nii mais atte yi nga xam ne fee day public bi ñëw loolu dañ ko dakkaloon ndax déjà il y la mesure d'interdiction de rassemblement te ku atte ak salle dina am rassemblement ensuite surtout virus donc ñu allégé yenn mesures yi yi jëlal kaw allégement boobu tamit ñu jot benn lettre circulaire du garde des ministre de la justice ci lañ nag jël décision ni à partir du 28 bu ñu korité ba pare dañuy reprendre des audiences mais en le plus de sécurité possible mooy maanaam geste barrière yëpp ñu jéem ko respecté ba nga xam ne bu ñu reprendre aussi du am benn danger nii si ñun nii si ñeneen ñi mooy respect des mesures barrières yi ma wax mooy la produits aussi locaux yëpp dinañ ko désinfecter avant ñuy commencer surtout les salles d'audience ensuite le huis en principe légalement l'audience est publique ku mu neex da ñëw dugg waaye dañuy respecter huis clos bi de sécurité képp ki xam ne daal sa présence nécessaire la soxlawuñu la si bi doo mën a ñëw pour la protection de tous lu jëm si prison yi droit la si détenus yi ñu am visite te dañuy soxla gis seen bopp c'est pas parce que bi waaye bu ñu bàyyee nag ku nekk di ñëw di leen sedd kii virus bi mun na fa dugg te bu fa duggee xam ngeen maal day taal ak foofu ñu nekk loolu nag comme que dañagul complètement déelaguñ benn décision nag waaye li gën pour seen sécurité toujours ñoom la ñuy protéger ñu dakkal visite bi si kanam mbaa situation bi gën a maîtriser wu buñ ko maîtriser nga xam ne dinañ mën a am visite et puis organiser ba nga xam ne ku leen di seet si dañuy mën toog fi nga xam ne du am benn ki fay indi virus bi boobaa ñu organiser ak pour parce que également dañoo am droit am visite waaye dañoo am droit également ñu aar leen au maximum vaste mouvement dans la magistrature banqaas bu féetewoo fii ci Kaolack ñoom itam desuñu gannaaw ci coppite yi nga xam ne indi nañ ko tribunal grande instance bu Kaolack procureur de la république ba nu affecté procureur bu Louga moom moo ko fi nar a ñu jàpp ne nag loolee dëppoo naak yoon ndax tënku na ci ab déggoo bu yaatu bu ñu sukkandikoo ba léegi ci magistrat Bassirou Ndiaye ak soxna Ndeye Fatou Cissé. waaw mouvement bi comme ni mu ko waxee léegi si nasaraan mouvement bu mag a région région Tamba ak bu Kédougou donc si région yooyu yëpp tribunal de instance ak tribunal d'instance am na ay mouvement yu bëri bi ma laaj sànq mooy procureur bu nekkoon fii Kaolack moom dafa war a dem ki koy mooy procureur bu nekkoon Louga mooy ñëw fi jël place am wax naa la fi sànq tamit président bu tribunal de instance bu Fatick dafay dem Dakar président tribunal d'instance bi dafay ñëw fii président tribunal bu grande instance bu leneen ñuy jóge fële ñëw fii fonctionnaire moom liggéeyam si loolu la toujours nga xaar dañ la fiy indi pour un temps temps boobu jeexee ñu soxla feneen da dem jàngat bi loolu gas gis également donc il va même ni koy waxee indépendance justice bi boo nekk fii bés kanam nga dem feneen également nga mën a servir. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. Medina bàyyi tey jii la ñuy séentu weer wi bu ñu ko gisee suba la ñuy julli waaye ci jamonoy mbas mi ñu ne mën nañoo amal julli korite gi ci biir jumaa ji wala bokk ca julleekaay ba imaam Cheikh ci Cissé mi ngi ciy ñëwaat te ci micro Cheikh Ababacar Dieng. yonent bi wa sallam moom moo ñu indil dini lislaam ñu indil moo ñu xamal itam naka moo ñu xamal a a dog moo wax ne suumu wa aftiru li ru'yatihi mu ne fa in la aw fa akmilu iddata thalathin aw fa la jógee ci yonent bi mu ne suñuy oor nañ oor ngir gis nañ weer wi suñ ko gisee nañ oor suñ ko gisee itam ca mujjante li koor ga bi korité nañ dog julli korité fekkee ne dañoo niisal jaww ji wala ñu nëbbuñu ko nañ compte ba mu mat fanweeri fan su fekkee ci chaban la comme niñ def bi passé gisuñu ko woon ñu compte fanweeri ci chaban daal or koor gi nag samedi mooy nekk sent bu njëkk ci niñ gisee ñun su fekkee feeñ ci samedi ji dimanche dañuy julli su fekkee feeñu ci samedi dañuy def li nga xam ne loolu yonent bi wax sallallahu alayhi lu leer la li amul lenn loo xam ne nit mën na ko ci taawil wala dara ndax boo demee bëgg a ànd ak koo xam ne itam seeni waxtu moom jiitu na la ñeenti waxtu wala juróomi waxtu nga bëgg a ànd yonent bi wax nag lu leer nañu la loo xam ne nit mën na cee daal danañ seentu weer wi su na danañ julli dimanche incha ne julli gi dimanche la ak lu mu ne nangam mën na am lañu waajal jullee korité ren xam ne Medina Baye dafa am jullee kaay te gis nañ anam yu ñu julee jumaa ak te daawul ndax bu ngant amee rek mën nañoo seet li nga ne loolu la mbir mi daaj ñu def loolu maa ngi fàttaliku mooy bi Mawlana Cheikh Ibrahima génn àddina ba ci at moomu ko jullee fii jumaa ji ngant lu mel noonu nag comme baamu na nii rek su fekkee ne gis nañ a wàññi dara ndax feet la boo xam ne ñu feetu ko ci julleekaay ba ñu feetu ko ci jumaa ji benn la ci yàlla lépp la ci moom moom mi nga xam ne moom moom julleekaay bi comme ni ma ko waxee woon ci naafile gi moom moom jumaa ji itam su fekkee ne gis nañ ne jullee ci jumaa ji ci la ñuy gën a mën a régler mbir mi ba nga xam ne liñ ci ragal yëpp du am kon jullee ci jumaa ji dara nekku ci Tidiane Cissé tey jii nag la samedi seen rubrique jàngandoo ci beneen anam tey jii soxna Ndeye Fatou Cissé mi ngi ciy dalal oustaz Mohamed saw ñuy waxtaanee weeru koor wu tedd wi nga xam ne ma ngay tàggoo. koor mooy téye sa bopp ci lekk ak ci naan ak ci lépp luy dog koor gannaaw bu fajar bi fenqee ba bàyyi jant bi sox loolu nag nga defee ko ngir jaamu borom bi subhaanahu wa taala weeru koor gi tàggoo benn la ci ponk lislaam lislaam ak la mu wax ci njort heure boo demee ba jël sa borom di njort ci moom lu baax ak yiw lu baax doog ak yiw ngay am ci moom di ponk bi leen seen jàng doo ci beneen anam di indi laata ci samedi jile ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kon ci wàllum nafar ci jamonoy coronavirus gile ak i njeexitalam. Ah. amul lu gën a rafet ñeme yore xol bu takku ak sax ci li nga nekk waaye rawatina bu musiba amee wala ay mbaam bu am waaye amul lu gën a bon ragal amul lu gën a ñaaw tiitaange moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana muslu ci boroomam pour mu musal ko ci tiitaange ak ci ragal. li ni mel nag oustaz Mohamed Sow lañu ci àndal. Ah. nañ xam ne de lu gën a rafet ci jullit mooy mu sax mooy mu dëgër. jamono ji mooy waxtuk muñ jamono ji mooy waxtu rafet njort ci sa borom subhaanahu wa taala waaye ak dëggu ni ngay wéeroo ci moom waaye ak tuub tuub gu sell dellu ci moom. moom ak yéen ñi nekk kon ci déglu gi ñu leen di wax euh, dal leen ak jàmm. yow mi jullit bi yow mi doom aadama bi na nga nekk moyen pour tasaare jàmm pour tasaare ak dal waaye bur nekk moyen pour tasaare ak tiitaange mbaa tasaare ak ragal na nga njort sa borom lu rafet na nga njort ci yàlla yiw ndax kat heure boo demee ba jël sa borom boroom di njort ci moom lu baax ak yiw lu baax doog ak yiw ngay am ci moom ñëw na ci xadisul qudsi boroom bi subhaanahu wa taala ne man maa ngi taxaw ci sama njortuk jaam man maa ngi fare ci sama njortuk jaam mooy lim ma njortal rek falaa ne mu ne ku ne ci yéen na jortu li ko soob waaye man maa ngi ci fi ma sama jaam bi jortu kon soo jortoo ak yiw ak baax am ko waaye tam boo jortoo safaan bi itam fekk fi sa boroom subhaanahu wa taala ñun ñëpp nañ bokk jort ci yàlla ne ku bëri yërmande la ku mën a baale la suñ koy njortoo ci moom yàlla buñ koy njortoo ci moom danañ fekk ci moom ñeewent nañ am yaakaar ci yërmande yàlla nañ bokk ci muñkat yi nañ bokk ci saxkat yi ragal dee bokkul ci melokaan yu tedd cig jullit file nag la ñu yemandeeg yéen ci seen rubrique euh, jàngandoo ci beneen anam. Euh. alhamdulilah. baa ngi ne alhamdulilah. yal na yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp. xaw nañu ci yoon moom bëgg. def ñii di jaamam yem tànn. def na ñuy jaamam yem tànn. jaamam yem gëdëm. jaam yem toppul dara. jaam yem yërmandeem jiitu ci ñoom bugaram. jaam yem yërmandeem jiitu ci ñoom bugaram. yal nañu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin. yal nañu yàlla fegal mépp musiba ak bépp balaa. yal nañu yàlla ak borom xay yàlla fegal wépp xay ak borom waay yaa daje beneen yoon incha allah. xabaar yi bitim réew. xabaaru bitim réew ci roppalaanam la dugg moom Cheikh Tidiane Sarr ana fan lañ koy dooree. xabaaru bitim réew yi dañ koy dooree ca réew mi di càdd càdd nag ay avocats yi nga xam ne ñooy layal rakk ca njiitu réew ba ñu gën ko xam ci salay débi nag ñooy naqarlu bu baax a baax euh, doxalinu yenn ci ONG yi nga xam ne ñooy tuumaal euh, rakk njiitu réew boobu ñuy wax Idriss bi ñu gën ko xam ci salay bi nag ne dafa laale ci benn faat bakkanu benn sàmmkat foofu la ca réew ma ñoom nag ñu ne sàmmkat boobu lu ko rey nag dafa lapp waaye nag kenn mënugul wax jamono jii ne moom laak du moom ba tax ñuy oo ñi nga xam ne ñoo di ONG yooyu nga xam ne dañuy tuumaal di sàkku sax ñu jàpp rakk njiit réew boobu ne ñu bañ a sori ci mbir mu nu mel ndax attekat yi ñoo war a wax ci dogal boobule. xabaar yi bitim réew. ca Angleterre la ñuy jubali wax ci ONG bi ñuy wax Oxfam Oxfam nag ñu gën ko xam bu baax a baax ci taxawu askan waaye tamit dimbale bu baax a baax new di doole yi nag moom tëj na ay bureau ci àdduna bi lu tollook fukki bureau ak juróom-ñett waaye tamit dàq ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéeyal lim bi toll ci junne ak ñeenti téeméer ak juróom fukk nit ñoom nag lu tax mu dàqaleen nag moo di jafe-jafe yi nga xam ne commencé na ko am moom ONG bi ñuy wax Oxfam lépp nga bi ñuy wax. coronavirus ci ab communiqué nag euh, Oxfam mu ngi ci xamle ne ne daal euh, tëj na fukki bureau ak euh, juróom-ñett waaye tamit dàq li tollook mille quatre cent cinquante nit yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci dëkk yi nga xam ne moo di Afghanistan Haïti Soudan Burundi Rwanda Mauritanie tollook ñeent fukki pays ak juróom yi nga xam ne kuréel gi fës na fa lool moom Oxfam. xabaar yi bitim réew. dañuy jubali ca réew mi di Brésil wax ci parti des travailleurs maanaam parti liggéeykat militaires yi nag te ki fa doonoon jiitu réew ba woon jiite ko di président Lula moom nag ak ay mouvement yi nga xam ne ñoo koy jàppale ñooy sàkk jamono ji soxna Ndeye Khady yi ñu jëlee fa ca bopp réew ma Jair Bolsonaro ndax nag lu mu yoree réew ma daal des na koy xoolaat bu baax a baax moom nag ñuy naxarlu bu baax a baax doxalin bi nga xam ne doxalee na ko ci feebar bi ñu coronavirus nga xam ne da ko négligé woon moom Jair Bolsonaro nag nekk ca réew ma lu toll ak attaque xaaj jamono ji nag commencé nañ ko daal sàkku mu jógee fa nag Sénégal ay ministre am jaarale ko ci ñaari ministre de la santé nag gisoon nañ ñu démissionné ay bisier ñu génn waaye tamit ministre de la justice ba woon ak benn euh, directeur de police mu nekk nag ci jafe-jafe yu mag foofule ca réew mii di Brésil waaye nag sàkkuteefu parti des travailleurs boobu soxna Ndeye Khady nag kenn rek moo ci mën a wax jamono ji mooy chambre de députés ya ñoom nag ñu ngi xool ban suite la ñuy joxe ci sàkkuteef euh, bu nu mel. Chine la ñuy jeexalee xibaaru bitim réew wax ci li nga xam ne moo doon daje bi fa amoon ni ki ajuma gi ñu génn ca pencum ndaw réew ma mu doonoon daje bu mag a mag ci politique waaye tamit ci xoolaat bu baax a baax nu ñu mën a def ba suqaliwaat réew mii di Chine gannaaw bi nga xam ne coronavirus bi sonal na leen lool soxee ko woon foofu sax si seen réew yooyu bokkoon na nag ci dogal yi nga xam ne jëlee nañ ko ci daje boobu nag moo di daal euh, fexewaat ba yëkkati koom-koomu Chine naka noonu nag xoolaat nu ñu mën a def ba utalaat ay xëy ñi nga xam ne ñoo ko soxla jamono jamono waaye tamit amal ab lebu bor boo xam ne dina toll ci junne milliards ci xaalisu chinois bu ñu sukkandikoo ca premier ministre ba lépp ngir mën a jàmmaarloog euh, feebar bi ñu wax coronavirus Chine na gën a taxawaateem ngir euh, jàmmaarloog euh, réew mii di Amérique waaye tamit yenn ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ca Europe. xabaar yi bitim réew. yi buur na ñu leen di jaajëfal soxna Ndeye Khady ci teewlu bi. yaram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 Leipzig bu benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili FC Cologne dinaale ak Fortuna bu ñeenti waxtu jotee ñu dem ca Espagne foofu nag xam ngeen ne footballkat yi dooraan nañ i waaye nag ci groupe yu ndaw a ndaw reprise championnat bi nag foofu nga xamante mbas mi di coronavirus moo ko taxaw bu sukkandikoo ci rajo bi di Carina Cop nee na liga bi léegi tey nag mu fësal armanat bi nga xamante ni la ñu a ndoxteel yi ak club bi ñaar ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin gi ñu dëkkmal ngir ñu xam ndax UEFA dina jël ab ndogal ci li nga xam te ne format bu yees bi jëm ci saison bu ñu sukkandikoo ci këru taskati xibaar bi de Gazzetta dello Sport ba nekk ci Italie nee na formule bi nga xamante moom la ñu proposé moom mooy quart finale yi ak finale yi ñu amale ko ci benn jongante dong Sénégal nag ginnaaw bi nga xamante fédération sénégalaise bu football la jël club yi joueurs yi ak ñi nga xam ñu mooy encadré nekk ci ligue professionnel salaire footballkat yi ak encadré yi amul dara lu muy impacté ci li nga xamante ni moom payoor gi ci Angleterre la ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi bàyyi ko foofu ca Watford ñaari membre nekk ci staff ak benn footballkat ñoom nag dañ leen test positif ci mbas coronavirus ginnaaw ba ñu ko amalee ci centre d'entraînement bi nga xamante ni bi daal dina li nga xam te moom mooy ay test jëm ci coronavirus ma ngoo ko ndey xarit gannaaw ba ñu lay ñaanalee kandaay yooyu jàmm li ma gën a fës ci xibaaru tàggat jërëm yi jaayen jëf. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. ñu ñëw ak yéen ci kooru gay moolum géej ànd ceeg baax a jóg. kooru gay moolum géej o xaaj Ibrahim Gay tëjtal moo dàq ci lépp ne xitaam hoo misk la borom bi wax leelatul xadri ba nëgë ni moo ngi ci yoon wi li le tax fan yii le kooram mu fas xëyna matal ko sunu borom suturaal ko ay matukaayam yépp jël na ko waaye xolam moo neexut ne saxaaru poosam moo diisut madame Gay kontaanut ne ay soxlaam lépp dara yem mbagut li lee ëlëm boppam tax na DG jàpp julli ñaari ràkk tëj boppam comme amuñu dog yu ñu ko jox DG ci la tàmbali di woo borom bi 1958 yaa allah yaa allah yaa allah yaa allah yaa oh, ba millier di mat ci la kilimuk biroom bécceeku ci kawam DG yu <laughs> <laughs> o oh, xaaj Ibrahim ci la daw daal génn bureau ba eh, yàlla ku la ñaan xaalis ka bañ ku la woo nga nar ko wuyu demaguma demaguma ba fii xaaj <laughs> Ibrahim kay ci la waa rajo ba yëpp foox ko lan la xaaj Ibrahim DG buuxuma leen yéen lan la du fay naa leen mais dem leen ba ba dellu ci seeni poste DG ragal na bureau ba këram la jëm nga xool ko rek yërëm ko madame Gaye jaaxle ah, Haji Ibrahim lan la DG. dara maanaam du dara jamono rek corona bi ak koor gi natt suñu borom rek. oh madame Gaye xol bee baax Haji Ibrahim dalal yëpp yi bu ko yenu démb ak barki démb lépp dikk naa ci yow di la laaj rek ndax lu ma war la lépp lu jëm ci kër gi yemb na ñaari jasineer yi le yaay boroom yére xale yi mat na ndugg ji naa waaye nag am na loo xam ne yaa koy fàggu dugg la war muy muurum koor laaj na bàyyi nuuru diin Ñas mu xamal ma ne génne muurum koor farata la te borom kër moo ko war a génneel njabootam yépp nëgëni tey jile mën nga koo génne jëm ba imaam di julli ndebu loolu weesoo sarax la du nekkati muurum koor te xamal na ma ne pepp lay doon maanaam lu ëpp ci lu waa dëkk bi du dunde ñu xayma ko ci deux kilo huit cent wala nga nattale ko ci xaalis ngir bañ mu manqué bu la neexee mille francs par bopp te nee na néew ju doole ji la ñu koy jox ci gën a jege gën a yey xanaa loolu Haaj Ibrahim war ga ko mën a génnee nag DG <laughs> waaw waaw wallaay madame kay looy ree nag DG <laughs> maa xalaat ay vingt ans ci gannaaw <laughs> damaa mën a tànn juumuma loo juum <laughs> mun ak yow pikk ak feel barke rasulaay xolam tàmbale na di neex tonu jafe-jafe yi mu yenu woon yéen nekku na ko DG noonu la nekkee tax yëgul koor gi ba 17 heures jot Haaj Ibrahim dellu bureau ba naka muy wàcc escalier yi rek ci la fakastalu comme kenn gisu ko yëkkati na boppam yéen waaleek euh, coono muy onk rek <laughs> way sama day alhamdulilah ba gune kenn gisuma yow DG ndigg la mu jàdd ci robinet bi rek tànq ci ndox mi di raay ci ndigg li pour wàññi jafe-jafe ci comme jàpp na ne kenn gisu ko continué na di tooyal boppam o DG léeg-léeg di gestu rek gisul mbindeef xamar gaa ngi koy alawtiku naka mu ko nar a logee rek Cheikh Diagne daal di dikk Cheikh Diagne gis naa la bal sa caaxaan xamante doo war du ma war mais xam nga rek kër ga mënu fa def yenn ngir sukkay daf ma fàtt bàyyil ma naan affaire nga naan affaire jàppante <laughs> nga dëgg barke rasulaay kaay kaay ci la cheikh di jaañ-jaañ ubbi robinet ba naan ba biir bi fees tepp DG di jël wàllam fekk robinet tëj mu def lu ne gisul tus ci la sëgg di jooy ba dog daal jot o oh, Haaj Ibrahim kooram gi mat looloo tax ñu lay baalu àq yaag auditeur yépp ba déwénati li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf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 korite mooy xamaat Sénégal te li ni mel du guléet a yaaw seetal si du quotidien moo ñu xamal ne waa kër Abba Sall yu Louga ya tey la ñuy julli korite naka noonu njabootu Omar yeen yi ak ña ñuy duppee coordination des musulmans yu Sénégal fu mel ni nag Touba woon Medina Baye leew nañu seen ak yeneen këru diine yu mag yu bëri ñoom tey ci samedi ji la ñuy xamal seen ak séentu weer wi ñu ngi am yaakaar ne suba ci dimanche ji la ñuy julli commission ba woo ca RTS ngir xool weer wi yéen kaay bi ne julli ci Sénégal jullee ndoor tabaski wala korite loolu kay mooy xibaar te moo jafe waaye ñaari jullee am Sénégal loolu du xibaar ñun fañ koo tàmmu sax naka noona tamit àdduna bi réew yu bëri tey lañ julli korite <laughs> yaw seet tal enquête yéen a kaay na ko man kay li may laajte mooy aydul fitr gi korite gi naka lañ ko nar a jullee jullig mbooloo wala kenn ku nekk sa kër ngay jullee ah corona bi fa ñuy tere nit ñu dajaloo yéen a kaay bi na lu jëm daal ci jullig àjjuma ji Tuubaa Medina Baay lew naña seen ñoom fañ doon julli mbooloo donte matuwaay ya dandante masque ya respecté nañ ko ndax nag seen julli korite noonu lañ ko nar a doxalee am déet wala boog sa kër yi la ñuy jullee laas yéen a kaay ko man daal li ma xam mooy président Macky Sall moom këram lay jullee nay leer ba yegg ca naan ñi ja ndax julli korite du farata sunna la fu ko nit defee nay jàkka nay ci ab xàll na ci ab bayal ba ci sa biir kër lépp baax na borom kër ak njabootam sax buñ julee korite seen biir kër baax na nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne Sénégal li fi am léegi korona ëpp nañu ñetti junney doomu aadama allah si du quotidien moo ñu ko xamal ndakaaru njaay tamit fi mu toll nii jàngoro ja fa law fa wàlle fa fararari ba yegg ngir jëlee corona bi Dakar kilifa yi buñ ci lajjee na leen wóor ne fa ñoo nara a lajj ci Sénégal yëpp ki lajji nag lajj gu métti du kenn ku may Diouf Sarr jëwriñ ji dénk wàllu wér gi yaram a ah, seetal bi corona bi tàmbalee Sénégal fa seppi beddi waa direction prévention boole wut leen woon ci xeex bi bi mu demee nag ba carte gi jaxasoo jàngoro ji gën a law mu jaaxle ci la leen owaat boole leen loolu nag du dëgg du yoon ndax waa direction prévention Ebola bi mu ñëwee fii Afrique ñoom ñoo yoroon wàllu ñaax askan wi def ci liggéey bu am solo lan tax mu génne leen enquête ndax yàlla yow nga wax ci mu mën ñoo leeralal gis nga li ñuy wax kafuyaas pëcc xoo jaxasoo mbir yu doy waar moo xam ci xeex bi ñu xeex wàllu corona bi fa mel ni daal jëwriñ ji fay làmbatu xamul fu muy taxaw ka xam la mu wax nag ka xam fa muy taxaw ba tax mu wax ko mooy professeur Bassine ab gëstukat la ci l'observateur nee na gis nga garab googu ñu jëree Madagascar d'accorduma ñu jox ko fii Sénégal yi di leen ko fajee ndax ñun amoon nañ ko ba pare ana naka la nit di mën a wàll yaanee te fekk buntu këram sabar gaa ngay toj fa toj nag mooy diggante jëwriñ ji di Alioune Ndoye bi ñu dénk napp gi ak Sayer Seck yaw seet tal ñàkkante gu métti lañ nekk ci wàllu licence de pêche yi jëwriñ ji di Alioune Ndoye nee na Saer a ak ñi li ñuy tëb di dal di ma tuumaal ñoom xam na lu leen doy moom Saer Seck fa war a leeralal askan wi naka la def ba xam ñaar fukki bato ak ñeent fu mu ko jëlee kàddoom yaa ngi ci laas yéene kaay ba tey yéene kaay bi di ñu xamal ne këlëbu investisseurs yu Sénégal yi carte ga jaxasoo na ba léegi de donte seen njiit la Babacar Ngom jéggalu na ci njuumte bi mu defoon waaye tarawut gaañu gi fuñ de ñu ngay a attaqué nee nañ sax nañ ko audité ngir xam xaalis yëpp yëf leer yegg ca mooy na waa wàllu transport bi dem ak dikk bi oto yi daw diggante diiwaan ak diiwaan nguur gi parewut a sax ginnaaw fa koy gën a kay jëwriñ ji dénk wàllu yi moo ko wax hande na nag bu bees jëm ci wàllu dem bi dikk bi lépp ngir xeex wàllu corona bi le soleil yéen ñu ko xamal la mu xamal moom enquête yéen kaay mooy ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi ma ngay dénku kilifa yi ñu dénk wàllu école yi na ñaari fan ci weeru soin balaa élèves ñëw ak bu ñëwee yëpp wàllu cet ga nañ ko sàmm bu baax de élèves yi a a woykat bu siiw bu mag ba dëkk Guinée ñu di ko wax Mori Kanté génn na adduna bi muy am juróom-ñaar fukki at ba tey yéene kaay bi di ñu xamal ne fi mu toll ni Sénégal ku ñu jàpp tëj kaso bu la neexee ñu bàyyi la nga dem tëddee kaso sa kër ci kaw ñu takkal la ab bracelet électronique nag nga xam ne foo génn ñu xam ko mu signalé jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon maître Malick Sall ma ngi koy leeral ci biir yéene kaay bi li ci nguuru Sénégal jublu mooy kaso yi fees gi mu wàññi ko ñetti fan boobaak léegi ci lañu ko daal di ca conseil des ministres ab projet de loi la nag pour na ko gis nga ñooñu ñu tëj kaso Macky Sall baal na ci ñu bëri ci korite gi ngir ñu mën a ñibbi seen kër yi xam nga korite baal ma àq baal naa la àq fay takkar naa sa ci réew mi président Macky Sall moom fay tànn ci mbaaxaayam ak yërmandeem baal ñu nekk ci kaso gi Le Soleil yéene kaay na ko junne ak ñaar fukk ak benn ñoom la baal ren ñu génn kaso ña nekk kaso ga nag fa xam ñu leen di garde ñooñu nag jamono ji lu mat ñaari weer génnuñ ca kaso yi dem sa seen njaboot ga ba tax seen soxna ya ñu ngay yuuxu wallu na sonn nañ de yaw seetal kenn ci soxna yi nee na man sama borom kër ci kaso yi lay garde corona bi bi tax na ñaari weer ñëwut namm naa ko soxla naa ko njaboot gi waxi nopp xale yaa ngi may laaj may lay rek ba xamatuma lu ma lay moom it bëgg naa ñëw waaye bàyyi wuñ ko mu ñëw naka noonu xaalisu korité nee na jotagut pour mën maa yónnee fi mu toll nii daal maaraaw sax ku am jëkkëru moodu du waa ma ne waaw soo xooloon ci ñooñu nga tudd nag war a mën a muñ ñaari weer dëgg la nag métti na waaye man sama xel fa daj ay soxna jabaru moodu du yoo xam ne ñi ngi ci at ñaari xat ay xat yu baree bari di xaar seen borom kër ba léegi gisuñ ko di dox rek ak sutura xanaa ngeen muñ rek xam ne seeni borom kër buñ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 ci yéen jaa ngeen jëf. Le journal. Ndeye Khady Sadio. Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net, fayda.net, fayda.net, fayda.net, fayda.net, fayda.net.